auzu billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim dañal xalimag way ci alef mañi tagga bu mag ba fatu baay rijaal ya moom lanu taamu sëriñ bu mag ba fa Tuubaa rijaal ya la nu taamu moo jar di way ak a sargal di riim sagam ya di baamoom yow soxna jaara sa moo raw ci jëf ak jaamu ak maaramu moomu maamu bul war kemaam amul am kew Seex Ibra Faal falaraamu mbusoobe moom falaraamu amul ca faasaki Baxdaad amul ca misra ba ku cerno faati di boofal ak cerno cer ya mu seeru kuram loo ku tol ne mbar ma bandaamu doon sëriñ ba fa Tuuba sëñ saaru jekki ni kaamu dootoo fi seeru kuram loo ku tol ne mbër ma fa ndaamoo dagoon sëriñ ba fa Tuuba sëñ saaru jekki ni kaamu moom rek moo mën a ram loo ma samba jóob ma fa saamoo murit ba daa baye deende yi Seex Moodu Buuf na basaamu moom rekk moo ma naraam la ma samba Jóob ma fasaamu murit ba daa baye deende yi Seex Moodu Buuf na basaamu Sëriñ Mamar manu magal boofal na bamba basaamoom sëriñ ma baabu ma selloon sam-sam la boofe basaamu pencum sëriñ ba fa tuuba góor yàlla yépp faraamoom yaa taxa baax ma du baasi saloo di tagga kabaamu pencum sëriñ Bamba Tuuba góor yàlla yépp a faraamu yaa tabax ma du baasi saloo di tagg kabaamu boo jàppatee xalima ko way taggal ma Ahmadu daamoom aska salaam ay bi yunaalu maraamu aska salaam ay rabbin bihi yunaalu maraamu xalaa nabi bi xisabin fekk maa ngi fi tagg daamu aska salaam ay rabbin bihi yunaalu maraamu ala nabi bi xisbin fekk maa ngi fi tagg daamu